bésu ba tey jii nag ci fajar ji nemmeeku nañ ay taw yoo xam ne amaat na ci ndakaaru bu sukkandikoo nag ñi nga xam ne ñoom ñooy agence nationale de l' aviation civile et de la météorologie di waa ANACIM ñu ne nag euh, yooyule taw dina wéy di am fii ci capitale bi eh, di Dakar wante itam fële ca Mbuur ñu ne bés bi yëpp kon taw yooyu mën naa wéy di am. syndicat yu contrôleur aérien euh, bu ASECNA yoo xam ne nekk nañ kon ci ay dëkk yoo xam ne kon ASECNA mu ngi fa euh, boo xam ne nag yoo xam ne kon Sénégal bokk na ci ñoom nag dañoo sumb ab grève bu ñetti fan ba suba tey bi ci ajuma ji wante nag bu sukkandikoo ci ministère des transports aériens bu Sénégal nee na suñu réew jël nañ daal seen ku matuwaay ngir grève boobule bañ a daal indi ay jafe-jafe fële ca. ay AIBD eh, ñoom ñoo ñooñu di contrôleur yi nag eh, boobule grève daal eh, dañ ko sumb kon ngir daal ak seen ko nekkin ak na ñuy liggéeyee ñu gën ko ñoŋal. ay migrants sénégalais yoo xam ne dañoo bloqué woon fële ca Agadez gannaaw bi nga xam ne dañ leen dàqee woon ca Algérie ñoom nag dañu tolloon ci cent soixante quatre personnes. démb nag am na ci groupe euh, bu am solo sax euh, lu toll ci cent quatorze yoo xam ne kon réewum Sénégal rapatrié nañ leen kon indi nañ leen euh, fii ci Sénégal ñu wàccoon fële ci AIBD ki nga xam ne nag moom mooy Seydi Gassama di njiital Amnesty International mu ngi rafetlu loolu bu baax wante nag mu ngay soññaat ñi nga xam ne ñoom ñooy ko Sénégal ngir ñu mën a indi suñu naataango yi nga xam ne kon ñu nga bloqué ba léegi foofu foofule ci réewum Niger. xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy ab ndaje boo xam ne ay njiital CEDEAO amal nañ ko démb fële ca euh, New York gannaaw bi nga xam ne nag ñu ngi doon euh, bokk kon ci li nga xam ne moom mooy euh, assemblée générale de l'ONU ci profité daal dajaloo ngir waxtaan ci réewum Guinée ñoom sax ñu ne dinañ jëlaat ay daal teg ko ci réew réewum Guinée ci jamono joo xam ne kon ña fa nekk di ko jiite di ci soldat ya ba fi mu nekk nii daal tegaguñ loo xam ne daal dal na xel. ngir jox ñi nga xam ne ñoom ñooy civil yi eh, pouvoir bi nee nañ itam dinañ yebal ab mission eh, fële ca Mali nga xam ne it eh, ñay takk der ya wala boog soldat ñoo fay jiite nguur gi ba léegi. xibaar bitim réew it benn ponk lay doon muy ca foofu nag ab manifestation boo xam ne dafa amoon gannaaw bi ñu fa jàppee woon ab xale bu jigéen te li ñuy woowee police de mœurs ñoom ñoo ko jàppoon ba sax moom mu faatu nag. Euh, ca gannaaw ga nag manifestation ñu bëri jógoon euh, di wane euh, seen ku mer ci mbir moomu buñ sukkandikoo nag ci li nga xam ne ab li ñuy woowee centre de droits humains en Iran boo xam ne sax ONG la boo xam ne mu nekk fële ca New York mu ne nag lu toll ci trente six personnes si ñooñu doon manifester jot nañ leen faat. Euh, nga xam ne nag ñoom ñooy média wu état wu Iran ñoom nag nee nañ 17 personnes daal ñoom ñoo ñàkk seen bakkan euh, ci manifestation yooyu la wante nag euh, ñii di ONG yi kon chiffre yi nga xam ne joxe nañ ko ute na lool ak chiffre ba nga xam ne kon moom la média d'état yooyu joxe. dañ koy jeexal xibaar xibaaru sport euh, ak ki nga xam ne moom mooy sélectionneur bu Bolivie ñoom nag ñoo war a dajeek euh, Sénégal euh, suba ci ab match amical boo xam ne sax suñu gaynde yi dañ ciy waajal lii di coupe du monde moom nag bésu tey bi da doon amal ab conférence de presse ci conférence boobu nag dikko dikkaat na ko ci solo si nga xam ne match boobu am na ko lool donte sax lii di équipe wuñ. ci mondial bi war a am fële ca Qatar match boobu nag kon euh, ñu fàttali dina am suba bu 17h euh, jotee heure GMT fële ca Orléans ca France lu ñu doon tey ci xibaar yi seen teewlu jox dañuy ëllëg.